bokki jullit yi rawatina bokki taalibe yi noo ngi santaat sunu borom subhaanahu wa taala di julliwaat ci Moustapha sallallahu alayhi wa sallam di feddaliwaat sunu yaakaar Cheikhuna Ahmadul Xadim di gën a ñaanalaat Serigne tubaa Cheikh Mahamadul Muntaxa sunu borom gën ko fee yàggal lool te gën a dolli ak wéram sàmmal na ko ba mbooleem naali lislaam yii mu naal ci toolub Serigne Touba Xaadimu Rasuul suñ borom bàyyi ko fi ba mu àggale ko yëpp tañu ànd koog moom te am ci ngërëmul sëriñ bi mbokk yi xam ngeen ne kuréel bii di junnatun liman nasamahu wuutu sëriñ Muntaxa ci ndox mii nga xam ne dugg na ci biir këram te bu ma nee biir këram mooy këri murit yi mu dugg ci Touba kër gum ci mën a doon rek këri sëriñ Touba la ndax Cheikh Abdoul Khadir daane wax ne kër gu mag la ñuy wax ci njaareem waaye kër yëpp sëñ Touba ko moom kon kër yi bunt kër yëpp bunt kër yi sëriñ loolu nag mu lëkkale woon ñetti bànqaas ba noppi ñeenteel leen muy banqaas bi nga xam ne moom lañ dëkk dénk dëkk bi te mooy commune bi te Cheikh Abdou Ka nekk nii di nekk ca bopp ba waaye boole ci banqaas bi nga xam ne murit yëpp ko bokk muy Touba ca kanam te abi bu nekk ca bopp ba Serigne Abdou Lahad moom Serigne bu nekk fii toogal ko fi waaye banqaasu bu Tarqiyyah di soldaar yi Serigne Touba yi nga xam ne général bi ne ci seen kanam mooy Serigne Youssou jóob moom it nekk fi nekkal leen fi waaye ñoom nag biñ gisee ne ñi ngi ci biir waar wi nag. te ab soldaar moom bu xare tàkkee day joxe bakkanam soog a dem ni sahaaba yi defoon ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaayanteeg seen i bakkan teg ci seen alal soog a jóg wuti wuti xare ba ñoom noonu lañ def moo tax nag bi ñu ñëwee ñu ne jëmm yaa ngi nii mooy deret ji di bakkan yi waaye alal ji du des ginnaaw ñu ne nag kon nañ dem faggu nag loo xam ne danañ ko ñëw walloo si ko Seex mun taxaa fekk ko ci liggéey bi ñu dajale nag seeni i addiya fas ko yéene andi loolu moo tax bi ñu dikkee Sëriñ Yuusu wax ne moom ci biir junnatu la bokk kon nag moom amu fi kàddu ñi am kàddu mooy ñi nga xam ne ñooy waa daara ji te ñooy sëñ Modou Thiam mii moo nekk kuréel bu moo nekk Dakar waaye nag fas yéenee wax ci turu mbooleem is bu tarxiya bu nekk ci biir réew mi suñu noppee sëriñ Iliman Sarr mi Amérique dana yëkkati kàddoom ci mbooleem eh, is bu tarxiya bu nekk ci diaspora bi ak foo mën a nekk ginnaaw bu ñu dajalee seen addiya indi ko joxewaat seen i bakkan joxe seen i alal fas yéenee ànd ak seriñ bi te amuñu genn tànn. ñu ngi ziar suñu kilifa yi ñu fi fekk yëpp. Euh, ñëw tey jii ci turu Hizbut Tarqiyyah ndax jotaay bi moom yaakaar naa ne bu ñëw dajee rek ci kuréel Hizbut Tarqiyyah jëwriñ ji mi nga xam ne moo fi nekk muy Serigne Youssou jóg muy responsable moral bi Hizbut Tarqiyyah moo war a wax waaye nag kàddu gi bi yoon ñëwee dañoo tey moom maa ngi ci kuréel gi nga xamante ni Cheikh Mouhamadoul Mountakha moo ko samp fas yéene mu taxawu liggéey bi nga xam ne ni ginnaaw bu xew-xew bi amee mu jël euh, euh, Touba ci kanam euh, jël comité rural bi boole ko ak isbu tarxiya mooy ñetti bànqaas Cheikh mun Mountakha teg ci ne maa leen ñeenteel ngir ñu taxawu liggéey bi loolu itam boobaak léegi bés bu yàlla sàkk ñoom ñu ngi fi di saytu liggéey bi di ko saytu saytu boo xam ne ni ñu ngi ci sant Sëñ Tuubaa bu wér liggéey bi nag loolu nga xamante ne bii noonu la nosoo nga xamante ne bii isbu tarxiya moom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 muy ab liggéey boo xamante ne bii ñu ngi ko samp fii Touba ñu gis ne comité bi noppaluwuñu guddi noppaluwuñu bëccëg fii ku leen gis gis nii ñu taxawee ak ni ñu takkoo di wër Touba fuñ xam ji fa taxaw képp koo xamante ne bii am nga loola gaar ci lii ñu taxaw temm ci dimbali la ànd ak yow taxawu la ci fànn yëpp loolu moom ñëpp teg nañ seen bët nga xamante ne bii amul yendal amul fanaanal kon ñu ngi ciy sant fas yéene ñëw rek euh, barkeelu ci li tàmbalee ko liggéey bi. waaye xam ne ñu ngi dem ñu ngi ñëwaat incha allah. ñoo ngi jël suñu nuyoo ñun waa Hizbut Tarqiyyah ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw bi réew mi bitim réew bi di ko jébbal euh, comité bi nga xam ne moom la sëñ bi tudde junnatun liman nazamahu te sëñ bu jiite ko ak sëñ Abdou Lahad Ka di jiite communauté rurale bi ak sëñ Youssou Diop ki nga xam ne mooy jiite euh, daara Hizbut Tarqiyyah ni ko sama mbokk mi waxee sëñ moom Mamadou Thiam waxee noonu rek la demee eh, sëñ bi moom bi mu joxee ndigal moom sëñ Mountakha ñan na ko yàlla gën a dëgëral gën a guddal aw fanam gën a wéral ay cëram ak mbooleem rek ay taalibi ba ci jullit yëpp ndigal loolu da ko njëkk a jëf eh, eh, jëfe wooti nag taaliba yëpp murid yëpp ba ci jullit bépp boo xam ne bëgg ngaa jariñu ndigal itam ni nga xam ne ni la ko sama mbokk mi wax sëñ Mountakha bi bi bi ko suñu responsable moral joxe bépp membre bu góor bu jigéen bu nekk bitim réew dañoo taxaw di jokkoo di soññe ba addiye ji nga xam ne ni ko biir réew mi defee ba addiye ji nga xam ne sëñ mu caam tudd na ko léegi euh, kenn ku ne lam ca war a joxe am ñoo xam ne dañoo joxel seen bopp joxel seen i soxna joxel seen i doom ngir fonk rek ak dëgëral baatub sëñ Muntaxa bi nga xam ne wax na ko loolu nag biñ ko defee ah ci lañ dajal loo xam ne toll na li boobu di téeméeri ton ceeb te qualité nag la te itam nag fukki millions yoo xam ne ak tàmbali dong lay doon kon eh, feek sëñ bi waxut ne wëlbatiwaatul laaj ji jubale ko feneen dañ ko fas yéene ànd ak comité bii nga xam ne mooy junnatul li ma na sama ko waa Hizbut Tarqiyyah di ci jëf di ci woote di te duñ ci taxaw te duñ ci duñ ci duñ ci duñ ci eh, dàcc dañ ci sant sëñ tubaa ndax buntu la boo xam ne nii kat buñ tëb jariñu la ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam dane man farraja kurbatan min an muslimin farraja allahu lahu kurbatan min kurbaati yawmal xiyaama te lu mel nii rek tax ndax yont bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne képp koo xam ne da ngaa dindi njàqare njàqareel benn jullit yawmal xiyaam suñ borom dana la fa teggil ay njàqare yaakaar naa nag tiis yi nga xam ne daal na ci eh, waa dëkk bi ah, ci ñenn ci dëkk bi loolu aw tiis la kon sëñ Mountakha ñu ko fay ndax dañu bunt bu liggéey te képp koo xam ne bokk nga ci kuréel bii te kuréel bi daal daanaka mooy murid yëpp rek ndax bu ne Touba ci kanam ne communauté rurale bi ne Hizbut Tarqiyyah ah kon xam ne ñëpp a ngi ci biir kon luñ ci jëf nañ ko xeeb te nan xam ne euh, luñ ci jëf it doyut te it wax dëgg yàlla ñun lii dañ ko jàppe rek ndoxum tool dañ ko jàppe rek ak tàmbali boo xamante ne bii ñoo ngi dem ñoo ngi ñëwaat niñ ko waxee rek wëlbatiwut laaj bi jëmale ko feneen sëñ Yusu sëñ euh, Abibu sëñ euh, Abdul Ahad Ka xam leen ne duñ duñu ñu seen ginnaaw duñ teñ ñu ginnaaw mukk te it nit ñi leen nekkal bitim réew yi nga xam ne dañoo war a ñëw ko te kenn ku ne am liggéey boo war a doxal ñoom ñu nekkal ñu ci terrain bi nekkal ñu ci bureau yi nu ñu nekkal leen ci beneen terrain bi di di war a saytu hadiya ji ñun itam duñ ci dellu ginnaaw te luñ ci jëf xeeb ko te fas yéene leen fu ngeen gees war gis ni bu loolu jàllee ne suñu kàddooy bopp ñun waa Hizbut Tarqiyyah mooy suñu responsable sëñ Youssou mi nga xam ne sëñ Mountakha Mbacké moo na ko tànnal ñoo ngi leen xamal ne dañoo fas yéene koo gekk bu ñu yaani marsuus lu mu joxe lu mu song ñu ànd kook moom tey lépp lu mu santaane ci liggéey bii muy bu bii nga xam ne mi ngi ci mi comité bii di junatan li ma na sama xoo waaye leneen lu mën a doon itam moonu ca jiitu ci wax ak ci jëf nit nag boo boo amee jawriñ bu mel noonu nag mu taxaw di la soññ liggéey Sëñ Tuubaa te loo yëkkati mën a ci kanam kon ñun ñu ngi koy sant ñun tam ñu ngi koy beral cant koo xam ne cantu baatin la ak saayir suñu lam bi mënuñu waaye daal comité bi daal xam leen ne la Sëñ waxoon ñun lool rek la ñuy daaneele suñu kàddu Sëñ Tuubaa bi muy jógee mbakk Baari te Rasulullah sallallahu alayhi aar ko su ma xaala loxoom si laa tax sa euh, xarar joojee mu ko xam ne ko demal ci liggéey bi dara du la lor ñun loolu la ñuy wax suñu bopp di ko wax képp koo xam ne jóg nga di liggéeyal sëñ Tuubaa mooy wa man takun fi rasulillahi xidmatuhu musaahiba sidqi wal ixlaasi wal xasani falaa yaxaafu wala yarjur wala zamanan isil wiqayatu tuxni anil kinani loolu sëñ Tuubaa da ci wax ne képp ku jóg di ma liggéeyal dinaa la dëpp kaaraange goo xamante ne bii dara mënu ko bëtt ba si ci yow kon bu ñu ragal bu ñu jàq bu ñu tiit nan xam ne kaaraangeeg suñ borom kaaraangeeg sëñ Tuubaa ànd na ak nun kon li ciy def ci nun lay dese te kat Sëñ Tuubaa dafa wax loo xam ne nii képp ku jóg di ko liggéeyal sa xel war na dal sa yaakaar war na dëgër ndax daf na waq di hawaa ijal si na daamoo fii xidmat yi waxab lahum maaraamoo loolu nag dafa ëmb lépp lu nit di bëgg ci kaw suuf ndax da nga bëgg ku la jëñal sa loxo wala da nga bëgg ñoddi sa xememteef lu mu ci mën a doon nag daf ne boroom yow mi am kattan maa ngi lay ñaan nga faj aajooy képp koo xam ne sax na ci sama liggéey waaye yemu ca waxab lahum maaraamoo nga may leen lépp lu ñuy sàkku kon du ñu guddal eh, lii daal mooy li nga xam ne eh, ñoo ngi ko waa Hizbut Tarqiyyah indi na ko muy biir réew mi di bitim réew de ay kàddu yu gàtt waaye di addiyee joo xam ne ju ñu xeeb la wuy si ci wooteeb Sëriñ Muntaxa bi mbokk yi Sëriñ mu ne asalaamualeykum wa rahmatullahi wa mu ne ñu ngi nuyu bokk yi fi teew yëpp. ci turu. kuréelu junnatun liman nasamahu ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Muntaxa mu ne mu boole ñetti kuréel yoo xam ne moo di commune bu Touba ak Isbu Tarxiya ak Touba ca kanam nee na ñu teewal fi Serigne Abibu moom Cheikh Mamadou Fadal mi nga xam ne moo jiite Touba ca kanam ak mboolem mbokk sëriñ Abdou Ka mi jiite maire bi mi ngi maire bi mi ngi nii teew moom it ak ñi mu àndal ñëpp sëriñ Issa moom sëriñ Moustapha Bassirou ak sëriñ Khadim Sam ak sëriñ Babacar Mbacke ñi ngi nii toog ak ñeen ko àndal ñëpp ñu ànd ak sëriñ Youssou Diop mi nga xam ne mooy jëwriñu Hizbut Tarqiyyah te moo ko yore daa mënta wax ci boppam. nee na nit nag daa ta wax ci boppam. moo tax ñu tax ñu di ko wóotu ci kàddu yi. waaye kàddu junnatun kuréel bii di junnatun moom sëñ Yuusu moo ko yor. kon kon nag ci turu kuréel. sëñ Yuusu ñu ngi lay nuyu. sëñ Yuusu ñu ngi lay nuyu. yaa bokki taalibe yi nga àndal lépp nag day dellu ci pàgguteefu sëriñ sëriñ bi. sëriñ bi. ndax sëriñ bi. li mu munta ñàkk lépp tey ak ëllëg. fàggu na ko. nee na kenn du ko defal lenn kenn du ko ci féete fenn lépp boromam féete na ko fa delloowaat na it lépp boroomam boroom it tànnal na ko lu ne la ca gën adduna ak alaxira ton tànn googu nga xam ne moom la ko boroomam tànnal la gën ci lépp nag mooy ñun ñii ñëpp rek ndax dafa wax ne keroog ba sun borom waxee ne alastu bi rabbikum ba mu bindee ruu ba teg leen da leen a laaj kan mooy seen boroom ndax du seen boroom nee na sëriñ bi nee na ruuxu sallallahu alayhi wa sallam moo njëkk a wuyu na ko axa yaay sunu borom sëriñ bi nee na maa ca topp nee na ba loola amee sun borom dafa wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam na ko tànnal saw xeet nee na ca bis boobee ca la yonent bi tànn aw xeetam ba tànnee ba noppi sëriñ bi nee na ñu ne ma yow Ahmadou jógal tànn sa waa ma bàyyi fa la fa yonent bi bàyyi dugg ci biir la yonent bi tànn tànn ci sama waa kër ku ngeen fi gis ak njàmbaar andiwu ko ci yoon wi ku ñëwut ak yaafus bàyyiwu ko fa teewu koo ñëw dañ ko tànnaalewul rek ci pëseef ak yitte ñoom ñaar ñii keroog bi ñu sëñ Muntaxa boole jataay bu njëkk ba ba ci jataay bii ñu toog waxtu wu ne pësteef itte ju kawe ak njàmbaar ba sëriñ bi bëgg mën a am ni ko sëñ bi bëggee ci loolu dong la ñuy xëy kenn ku nekk ci ñoom joxe na boppam joxe alalam joxe waxtoom loolu daal mënee su ko weesu doonte nag loolu moomuñu ko ndax jaay nañ ko sëñ Tuubaa ba mu jar te nag lu waay jaay ba noppi jot ci njëgg saxaaba ya doon jaayante di joxe seen bakkan sax yaakaar ak njëg a taxoon waaye ñun moom dañoo tàmbalee jot njëkka jot ci njëg gi soo ko jaayante ñoo ngi jëfandiku ci njëg gi ci àdduna te demaguñ àllaaxira ga tax ñu jaayante sëriñ bi daa mas wax ne fere yi day dañoo jàpp ne li fi nekk di xéwal dama leen ko faye ci liñ doon liggéey te déedéet demewut noonu de ndax àdduna du këruk fay kon alhamdulillahi rabbil alamin ta